hasbunallahu wa ni'mal wakil assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi nuyu mbokki jullit mbokki taalibe yi rawatina mbokk yi nga xam te ni ñooy baaxoo di teewlu suñu jataayal ndaw ñi ci Mouride TV muy jataayal xam-xam waaye di jataayal fàttalikonte comme niñ koy baaxoo di defee ci jamono ju ne ñu doon jàngale nag téere bi ñuy wax zaadu zawi taxallu bi mel ni yeggoon nañ ci bunt bi nga xam ni sëñ bi daf doon mottali ak ndénkaani ndénkaani yu am solo ci jeexantalu téere bi ñu doon nettali ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa nim wana wana muñ ak xiif ak muñ ak xiif li muy jariñ ab jullit waaye ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa daan defee ñu tolloon doon nettali ci ak mujjug dundam moom yonent bi sallallahu alayhi wa ni nga xamee ne noonu la wàcce woon boppam ak doylu ci li ko suñ jox ba nga xamee na ak dundam daan na ci tumuranke ci ñàkk lekk ak ñàkk am lu mu dundee ma daan toog ay ñaari ayu bis yoo xam te ni ci këram daaw fa taal ab taal boo xam te taal ab togg la moo tax bu dikk tàmbali ne wajaa a dikk nañ ne an na dirhahu naka mubbum kongom ma yowmal wafaat bisu faatu ba mbaax moom yonent bi sallallahu alayhi rëhnun ab tayla la la dal yahuud fa yahuud ba fii xawli ruwaat ci waxi way nettali ya kon muy dikk ba tey ne dikkee nañ ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam siiw na ne moom yonente bi sallallahu alayhi kat mbubbam ma nga xam te ni mooy mbubbum koŋam ma nga xam ne yaakaar naa bu daan jëm ci xare yi moom la daan sol ba mu faatoo fekkoon na mu tayle ko ab yahuud ngir ak dund gum ko joxoon mu ci pepp moom ñu doon wax ne daan na ko dundee mu tay dafa yére ba ngir am ak dund mu ne wal umm yaay ja mu ne axbarat xibaar na bi kaw ni ci nekkuk regg awala say in ci njëlbeenuk mbir wala ci njëlbeenuk dara xat badaa goog feeñ na min bidaaxin ci bidaax mu ne kat sayyidatina Aïsa nettali naan yonent bi nekk kat ku jëloon léppam la jébal ko yàlla waaye doyadal àdduna ba taxoon na muy sonal boppam ci ak xiif sonal boppam ci yu bari ci àdduna ngir jëm yàlla rek ndax suñu borom mayoon na ko ay montagne yoo xam te ni yëpp alal lay doon yu gànjoon waaye mu dellowaat lépp ci boromam ngir bëgg sonal boppam ci àdduna ngir wan gim wan ginnaaw àdduna di xiif xiif yu métti ñu jëm yàlla mu ne nag ginnaaw bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ gisee ne biddaa bi njëkk a feeñ mooy ñàkka xiif maanaam léegi di lekk ba suur ci jamono bi ñu toll mooy li njëkk a feeñ maanaam di feesal ay biir ci aw ñam ci jamono jum toll mooy li njëkk a feeñ bi daal bi a feeñ mooy nekk noonu mu ne alaykum dénk naa leen bil xelmi ci xam-xam mu ne annal xelma naka xam-xam nag huwa moom allazi mooy la nga xam ni yadd faxu dana joñ xankum walif yéen xam xamman njàqare wala aw tiis mu ne na ngeen xam ne mu ne dink naa leen xam-xam ngeen sàkku xam na ngeen xam ne kat xam-xam mooy li nga xam te nii moo leen di dimbali ci njàqare ak aw tiis kon nag xam-xam lu am solo mu ne talabuhu ak sàkkoom moom xam-xam nag mu xam muhammama luñ matale li kulli muslimin ñeel bépp jullit wa kulli muslima bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen da ngeen xam ne faat koo xam-xam farata ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen kon nit ki war naa fexe ba xam lu li muy jaamoo yàlla ci digganteem ak borom farata la ci moom waaye bu ca jógee mu fexee xam lu it jëflante yi muy jëflante ak nit ñi moo xam jaay la moo xam jënd la loolu lépp mu xam la ca sariya dogal nga xam ne dañ naan xam ne dina xam li jaadu ci diggante li muy jëfandikoo moo xam day jaay moo xam day jënd yaakaar naa dundu doomu aadama loolu mën ko ñàkk waaye nag xam lu ba nga xamee ne da ngay am xam-xam bu baax ba ñëw nag di xam le yeneen mbokk jullit loolu moom fardul kifaaya la farat la ci ñenn ñi bu ko ñenn ñi defee nag mu yóbbaale ñeneen ñi ko defut waaye bu dee sàkku xam-xam nag ngir xam lu li nga war a jaamoo yàlla loolu moom farata la ci bépp jullit moo xam bu góor moo xam bu jigéen loolu la jar bàyyi xel ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci ab xadis na talabul xilm faridatun ala kulli muslim wa muslim farata la ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Sëriñ Tuuba indiwaat ko ngir feddaliwaat ndax dafay mel ni day jeexantalu dénkaane bi waaw day jeexantalu dénkaane bi moo tax mu indiwaat sàkku xam-xam bi dénkaanewaat ko mu ci xam-xam ba tey ndax day mel ni luy fàttaliwaat rek ci wàllu xam-xam dañuy mën a yamale foofu suñuy kàddu ci beneen ba beneen jamono mel ni jamono bii di ñëwaat dañuy jël suñu bind bu mujj ci téere bi bind bi mujj ci téere bi mooy buntu mujj ko incha allah bi sunu jotaay bii di moom la ñuy tëjee téere bi ndax yi sëriñ bi doon dénkaane xam mel ni ci bunt bii la yam yàlla na yàlla saa borom defal ñu fekkee tam nangul ni lépp mu ngi aw yiw woo te ni nañ ko dencal ba ëllëg wax ñaan ñu bokk nekk kawe am njariñ ci lépp yàlla nañ suñu borom defal dégg ak topp ñu nuyu bépp dégg suñu kàddu ñu jàmm ak tawfeex ak mujj rafet ak yu bari te moo xam ne nekk ci biir réew mi la xam ne nekk ci bitim réew ñëpp ñu leen di jox seen wàcc waaye te leen ñaan jàmm kon dañ leen di jox di dajee ci jataay bii di nga xam ne incha allah rabbi bu neexee yàlla ca la ñuy jeexal téere bi incha allah rabbi kon yàlla ñu yàlla may xëf ko jàmm te teg weeru koor nii nekk ay ati ati at barke yén bi sallallahu alayhi wa sallam in uridu illa al islah ma sata'tu ma tawfiqa illa billahi alayhi tawakkaltu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh